Sana asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu mbokku seetaankatu Bichri TV télévision bi nga xamante ni moom moo jël liggéeyam yëpp def ko mu jëm ci wàllub euh, waa kër sëñ Touba ñu am mbégte mu rey dellu siwaat ak yéen ngir bokk ak yéen xibaar yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a fës fii ci Sénégal ak ci àdduna wërngal këpp ñu ngi koy dooree ak bis bi nga xamante ni at bu jot moom la ñuy jagaleel kii di maam Thierno Birahim Mbacke ñu gën nga xam ci ndax ndaamal daaru te ay sëtam di ko def ren nag di doon ñaareel bi yoon ñu koy def mu amoon euh, fële ca Cices ca Ndakaaru bu buñ fa jógee dañuy dem ba Napoli euh, fële ca Italie mu mel ni mbokku taalibe yi fa nekk nekk ca daayira bu nga xamante ni ma nga nekk ci Touba comme ma nga tudd Touba Compagnia euh, ñoom nag góorgóorlu nañu ba daal ubbi fa benn kër gu mag daal di ko jagleel sëriñu Touba dinañ dem ba foofu xool kër ga la nga xamante ni moom moo fa nekk ñu ñu daal di dellu si fii ci njaareem ci quartier Kër Yéli fekk fa sëñ Lamp Mbàkke ci màggalam bi nga xamante ni at mu jot da koy def ngir jagleel ko bis bi nga xamante ni juróom bu góor ba ca la wuy ji woon boromam ren nak mu nekk fukk ak juróom-ñetteel bi yoon mu koy def kon mbokk yi ngeen taxawlu bu ne sa ñu ñëw ak ci yaatal. من لا يجي الاسمين naka ni leen ko waxee woon na ci bopp xibaar yi tey ji nag ñu ngi koy dooree ak bis bi nga xamante ni ñii di ay sëtub maam Thierno Birahim Mbacké ñoom ñoo koy defal ngir fàttaliku ki nga xamante ni moom moo di seen maam di ndaamal daaru ah, ren nag doon ñaareel bi yoon ñu koy def ñu jàpp doon defoon ko fële nga xamante ni moom moo nekkoon ci CICES ca Ndakaaru mu mel ne bis boobu nag dana tax ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ah, ci ah, waa kër maam Thierno Birahim waa kër xaadimu rasool ak Sénégal wërngal këpp ba àdduna wërngal këpp xam kan mooy ndaamal daaru ci ay kaddu yu jógee ci ki nga xamante ni moom moo di Serigne Ahmadou wax na ni ndaamal daaru mi ngi gane àdduna ci 1866 fële ca dëkk ba ñuy wax Poroxaan ka nga xamante ni tamit moom lañ ko duppeel turam nekkoon koo xamante ni day yëngatu bu baax a baax ci wàllu diine te doon it tamit xaritub ki nga xamante ni moom moo di euh, Serigne Touba Cheikh Cheikh Ahmadou Bamba looloo tax ñu jël ko jox ko ko ñu ni ki nga xamante ni moom moo di maam Thierno Birahim Mbacké moom tamit euh, jàng dafa jànge euh, ci ki nga xamante ni moom moo di Serigne Touba ndax Serigne Touba moo ko jàngal lépp lu mu war a xam mu doon euh, taalibe taalibe ci moom topp tamit ci ki nga xamante ni moom moo di ci ginnaawu Serigne tuubaa ba lépp lu nga xamante ni rek moom lay dundee mi ngi ko jëlee ci xaadimu rasool loolu taxoon na ki nga xamante ni moom moo di maam Thierno Birahim Mbacke musta julli te jàppul wala boog ñaari yoon la ko def te ba ndox amee dafa demaat yeesal njàppam daa di julliwaat mu mel ne ni foofu nag la bàyyee tiim moo tax ñuy wax ni musta tiim ñu wax ni tamit ki moom moo di ndaamal daaru musta jullee feneen fu nga xamante ni fu dul jàkk ja te heure bu fa jullee yi tamit moom mooy jiite ña nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk ñu nemeeku nen tamit ni ki nga xamante ni moom moo di maam Thierno Biraye Mbacke nekkoon na nit koo xamante ni nit ko ubbeeku la nit ku woyof la bëgg ñëpp sopp ñëpp du maanaam ñeewanteel kenn te it bu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 te du ko laaj te lu mu ko laaj mu jox ko te lu mu soxla Ceerno Faati faj dañuy daal di dem ba Napoli wala bokk Naples nekk fële ci euh, diwaanub euh, Italie foofu nag ay mbokk yu nga xamante ni ñoom ay doom Sénégal lañu te dëkk foofu euh, def seen daayira tudde ko Touba Compagnia ñoom nag ci seen liggéey yu mucc ayib fexe nañu ba ubbi fi ab makkaan bu am solo daal di ko jagleel Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba ñu ni ci makkaan googu nag def nañ ci ay euh, dëkkuwaay yoo xamante ni mën na euh, dimbale nit ña nga xamante ni ñu ngi ci wàllu tolof tolof wala doogaa di ñëw amaguñu fu ñu nekk waaye tamit def nañ fa benn salle bu mag bu nga xamante ni ñu ngi ko jagleel waxtaan muy waxtaan wu jëm ci diine muy waxtaan wu jëm ci yoonu murit ñu fas yéene fa def lépp lu yëngu-yëngu rek te jëmale ko ci wàllu wu ni mel. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu TV moo leen demaloon fële ca Napoli. féete ci réew itali euh, dafa fa liggéey boo xam ne bi mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo fa nekk muy daayira ba féete ca région ba ñu gën ko xam ci daayira Touba Campagna nga xam ne euh, mooy euh, juróomi gox ñoo ko seq maanaam juróomi région muy Napoli mi nga xam ne mooy chef lieu de région ba ak province Caserta ak province Salerno ak province Benevento ak province su Avellino euh, taalibe yooyu nag bi ñu dajee wax dëgg fa yàlla def seen fédération di ci liggéey ba suñu borom taw feexeel leen ba nga xam ne barab bi tey am nañ ko muy kër Serigne Touba. dañuy daal di dellu si fii nga xamante ni moom moo di Sénégal rawatina Diourbel ci quartier bu mag boobu ñuy wax quartier Kër Yelli kan fay fekk moom moo di Serigne Lamp Mbacké ci màggal gi nga xamante ni mu ngi koy def mu jot ren ji nag di fukk ak juróom-benneelu yoon bi nga xamante ni mu ngi koy def ñu fàttali ni màggal googu la nga xamante ni moom moo taxoon mu koy def moom moo di fàttaliku bis bi nga xamante ni waa juróom ju góor jooju di euh, Serigne Modou Rokhaya Mbacké ne euh, wuy ji na boroomam boobu ba léegi nag mu koy def ren ji tamit def na ko ca këram ga nekk ca kër yëli ci ci ba ko defee nag taalibe yi jóge nañ fu ne ñëw daal di saafante ak moom indi tamit seen ziyaara waaye tamit ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dénk ñu ngànk réew mi muy jëm ci wàllu aada ci wàllu cosaan muy jëm tamit ci wàllu diine ji ak ci wàllu administration ñëw nañ fa ñoom tamit daal di saafonte ak Serigne Lamp Mbàkke euh, saafonte jokkonteeg ñi nga xamante ni ñoom ñoo di taalibe yi ak tamit waa këram wane fa li nga xamante ni moom moo di seen bëggeel seen sopp gi ñu sopp sëriñ làmp Mbàkke rawatina seen sopp gi ñu sopp yoonu murit ci loolu rek jot nañ ci daje ak ñenn ci ñoom jot nañ ci daje ak ki nga xamante ni moom moo di xaasimu wan nekk fii ci biir diwaan bi moom nag la mu ko indi moom moo di nee na dafa yàgg nekk xaritub kii di sëriñ làmp kon dafa doon yoon bu amee amal mu ñëw fa teew di wax ni tamit Serigne Lamp dafa nekk ku nga xamante ni dafa doy exemple ci surtout tout tànk yi nga xamante ni tey jii ñu ngi ci biir Sénégal. Euh, yàlla dafa def Serigne Lamp Mbacke muy sama xarit bu yàgg ñu seq jàmm seq salaam. ba pare bokk quartier bii di quartier Cheikh Anta bi nga xam ne ñun lu ñuy yëngatu fii ci politique ci wàllu Jurbel euh, moom daanaka ah, ci njabootam bi nga xam ne moom moom moom la ngànk njaboot boobu ñu ci bëre daanaka ñoo ko xaw a sëñ làmp di nit ku baax di nit ki nga xam ne yàlla def na ñuy jokkoo ci lu bëre di jokkoo ci mbiru diine bi di jokkoo tamit ci mbiru àdduna parce que yàlla dafa def ku mel ni moom wala sëñ Mahfous Mbacké nekk fii Diourbel dañuy participer ci lu bëre ci yee xalaatu citoyens yi donc lu ñuy wax éveil citoyen te loolu tamit lu am solo la pour bu ñu mën a ñu mën a avancer loolu daal moo waral suma teewaay fii ma ñëw apporter ko sama soutien euh, incha allah bu ci kanamee tamit ci cérémonie bi dinaa ñëwaat pour euh, pour loolu yëpp ndax euh, li ñu seex man ak moom. Euh, soxna Aminata taal moom tamit di doomu Diourbel yónnee fa délégation bu takku kan nekkoon ca bopp ba di Ahmed Dia la tax tamit mu yónnee ka ñu ngi xamal ni kii di soxna Aminata taal ak Serigne làmp Mbacke danoo yàgg nekk ay xarit yàgg di tamit liggéey yàgg di soppante kon dafay doon yoon kii di Aminata même bu fi nekkulee ci dëkk bi mu yónnee ngir wane ni mi ngi ànd ak Serigne Lamp Fall ak Serigne Lamp Mbacke ba tey te du te du dañ Ameth Dieng moom moo jiite woon li nga xamante ni moom moo di délégation kon màggal gi ñu nag moom dañoo juddoondoo ci ànd euh, màggandoo ba tey donc du fi guleet ñun fekkee dañ màggal gi ba muy am benn baas ba muy am ñaari baas ba muy am ay seize ba tey mu toll ci tribune kon màggal gi ak Aminta màggal gi ak ñun ànd la bu yàgg donc du lu bees ñun euh, li ci bees xanaa kay mooy ren am télévision bu ñëw def en direct muy Bichri Télé ñu koy rafetlu bu baax a baax di sant yàlla bu baax mais loolu itam dafa lalu ci ànd bu bu bu wér bu dox diggante soxna Amintal ak Lamp Mbacké àndu nit ak càmmiñam àndu nit ak ak ak yaayam àndu nit ay dëkkandoom àndu ñaari nit yu bëgg yu bokk bëgg yu bokk bëgg mais également bokk bëgg-bëggu dëkk bi. dañ koy jeexalee ak ki nga xamante ni moom moo di préfet bu département bu Diourbel di Sayer Ndaw moom tamit ñëw na ànd ak ay ñoñam ngir wan Serigne làmp sopp gi nga xamante ni sopp nag ko ngir wan tamit Serigne Lamp bokk gi nga xamante ni bokk na ko ci yoonu Mouride yendu na ak Serigne làmp waaye tamit ca jàng ya toog na fa ba waxtaan bi jeex loolu tamit di lu nga xamante ni askan wi yëpp rafetlu na ko. muy message yu nuyoo cant ak ngërëm ci bépp bu jëm ci bépp chef religieux bu xewle mais message aussi boo xamante ni da ngay ñëw sàkkuwaale ñaan ñaan ci réew mi ñaan aussi ci liggéey bi nga xam ne moom la séq moom la yenu ngir askan wi mën a jëm kanam ngir Sénégal mën a jëm kanam donc loolu mooy li nga xam ne mooy wenn wàll wi suñu tànk li ñu yëkkati leneen li mooy maanaam jotaayu jullit la jotaayu jullit boo xamante ni képp ku jullit war nga fa ñëw sàkku fi ñu xewal sàkku fi ñu dimbal fi lu baax wut fi ay ñaan donc loolu moo tax suñu diggante rawatina nag mu am kóllëre gu ñu séq ak sëñ làmp moo waral suñu teewaay fii. waaw ñëw nga waxtaan nga ak sëriñ bi ba nga ci génne lan nga yëg ci sa bopp. li ma yëg mooy mbégte rek mbégte am yaakaar ni foog naa ni xale yi ku ci topp sëñ làmp war ngaa mën a am lu baax ndax moom li mu leen di digal mooy jaamu yàlla ak ak liggéey. ah jaamu yàlla ak liggéey nag foog naa ne sëñ Tuubaa moo ko njëkk a santaane moo ko njëkk a digle kon loolu fàttali la rek te fii ak mu ngi koy fàttali xale yi di ko fàttali ndaw yi mën nañu am yaakaar ni ndaw ñi daañ dellu ci loolu xam ne loolu rek mooy li sax liggéey ak jaamu yàlla te buñ ci nekkee rek xel yi mën naa dal te foog naa ni jàmm rek la leen di jural sëñ Lamp Mbacké gis nañ ni moom citoyen bu mucc ayib la euh, bu nga xamante ni mi ngi dox euh, saa su ne ci lu baax euh, yow lan mooy sa xalaat ci moom maanaam royuwaay bu nga xamante ni war na ko mën a jox tout tànku Sénégal. waaw loolu royuwaay bi xel xel dal na ci bu baax ndax sëñ Lamp bu weesoo li ñu seq man ak moom. ak li mu doxal ci dëkk bi foog naa ne royuwaay la te xale yi ko wër boo leen xoolee rek xam ne royuwaay la ndaxte am na nu xale yi doon comporté am na nu xale yi meloon te léegi foog naa ni ñu ci bëri ñu jokk ci moom foog naa ne soppi nañ doxalin te am na beneen façon bu ñu gëm ni moom mooy defar doomu aadama te loolu mooy jëmale doomu aadama kanam te loolu ci ki nga xamante ne mooy seet njiit mu sëñ Lamp ci lañ ko gisee donc mu ko nekk kon euh, njiit loo xamante ni ku wéru ci moom rek mën nga yaakaar ni di nga jëm ca lu baax te loolu lay woo xale yi te chaque fois bu ñu waxtaanee man ak moom wéet waxtaan ci discours am yëpp ci xale yi loolu lay jëm te fu ma ko fekkee xale yi xale yi wër ko ci loolu la jëm donc kooku xel mu dal la yaakaar moo fa nekk te foog nañ ni yaakaar googu mën naa jëm ca kanam. jërëjëf monsieur Saya merci beaucoup. merci. mbokki xarit yi si fii lañu yem ak yéen ci wàllu xibaar yi di leen di jaajëfal bu baax a baax ci ne ngeen taamoo Bichri fii tey jii nag ki ñu loon ci wàllu xam caméra bi di baara Sène wàllu montage bi Khadim Gueye wàllu faram-fàccee gi seen xarit seen doom ndeyaay Dlamine jaar ñu ngi leen di ñaanal jàmm te di ñaan yàlla mu boole na ko jëfal nu jàmm xel jàmm xol jàmm yaram defal nu sutura ju su sax dàq ñu ngi leen di jox dox daje ci yeneen ëtt xibaar incha allah sana ilaahi bil munaajaati